Oh.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 les que wax je ci spiritualité mang koy wax ci la ndax du de dimension temporelle ci dimension temporelle bobu lay wax nga même occidentaux yi dañuy dem di jang ci dimension par temporelle bobu ko suñu gaay Djangal nañ n'a qu'à la ñuy politique Djangal nañ l'art de gagner en ayant raison sans pour autant avoir eu leur avoir permis de développer leur art de gagner sans avoir raison Les Guinéens, on va leur apprendre l'art de lier le bois au bois pour construire le Sénégal que tout le monde attendait ñii duñu seen moroom bopp jamono jooju lañu toll ki ñuy roy ñun ci politik naka la ko doxalee woon ci ñaari fànn ba njëkk mooy bi mu di baale naa baale naa képp ku doon def tey leen rek dégg-dégg laa bëgg You wàccee rek bu seen omee ba ma daaneel rek dinañu déggoo ñun ñëpp. da ngeen ànd ak tey dama wax léegi présentatrice bi muy commencé ne ko neel ma gars yi dama bëgg ñu déglu bu baax li ñuy waxtaan. may gërëm yàlla di nuyu et di féliciter également kilifa yi fi teew. fi tew fi ay député ngi fi tew fi ay maire ngi fi tew fi ñu ngi leni gëreem ci sen teewaay waaye di delu sante yalla ndax tay ñu ngi ni am ay ministre tay ñu ngi ni yor gouvernement tay ñu ngi ni yor ay député yoon bi metti won na lol ngeen am ci nak taxawaay bo xamne dina ci delu si waye nañu and ak deglu rek dama ne mom bi mu yegsee dafa ne baale naa waaye baale bi mooy lan est-ce que ku sàcc alal réew mi bokk na ci baale bi musuñoo wax ni baale nañu ku sàcc alal réew mi sooy baale da baale li nga moom dërëmu réew mi moomu ma ko président Bassirou Diomaye Faye moomu ko kenn ci yéen moomu ko kon mu see bokk te suñu discours yëpp mun nañ ko génne kenn du ci génne gis contradiction ci point bi kon d'accord nañ ci te ma ne gars bi ñu jëlee réew mi ak léegi li ñu gis day na waar de jarul lappi lappi jarul yooxu ñun duñu complot duñu créer kenn dossier dañuy faxasu leer nañ ne justice mi ngi nii wax lu ci yoon wax te fa la ñu jëm est-ce que baale bi est-ce que baale bi ñu wax baale bi est-ce que fekk nit boo xam ne day revendiquer ay droit loolu muy xeex nga faagaakal ko dóor ko balu fital mu dee est-ce bokk na ci baale bi mës ngeen ñu dégg ñu dañuy baale loolu kon ma dalal xelu ñëpp ni lañ ca war a def dinañ ko def jarul yàkkamti jarul parax-paraxe ndax tey bu ñu bàyyee ñi jàpp Didier Badji ak sàmbu daal leen def li ñu leen di def ñu bàyyi leen nga rey nit keneen ki nga disparaître loo ko dem ba ci géej ga sànni koor ba ñu ne loolu yëpp nañ ko effacé dem bu boobaa ñun suñu bopp criminel lañu kon musuñu leen wax ni ca la bokk te du ci bokk jàpp nit parce que da doon manifester ole nga dem jaar jaarale ko yoon su dee def ko war rek waaye nga dugal ko ci commissariat di ko torturer est-ce que loolu bokk na ci baale bi musuñu koo wax kenn dama ne dem recruter ay nervi ndax fàttewuñu nervi yi de dem recruter ay nervi gandaay ñu song nit ñi di leen dóor ak di leen rey est-ce que bokk na ci baale bi musuñu koo wax kenn kon dama bëgg nit ñi and ak tay ak dal état dafa am nu muy doxé té ñun politique wuñu ak état de ñun dañoo xam état jang ko ci fañuy formé nitu état yi motax luñu jotu ba Andelen ko xam leen ni nañ ko bu mu dëgër leen ak tay ak dal ñu ngi ci liggéey bi lan lañ ni mën nañ ko man Ousmane Sonko néna lañ ma def man mu jëm ci man kese lañ ma def man mu jëm ci man mën naa ko baale baale naa ko loolu kay amul problème te di sàkku keneen koo xam ne keneen koo xam ne sa xol may na la nga mën a baale baaleel parce que baale day féexal xol baale day yokk nit du ko wàññi loolu lañuy waxoon ni ñun mën nañ ko baale waaye nag waaye nag waaye nag boo doxee ba ñu lay xeex ay at jël li ñu amoon ci moyens yëpp dalal ko sa kaw tiiñal la yàq sa liggéey dugg sa vie privée essayer tas sa kër toj say oto dóor la ay lacrymogène tëj la kaso loolu yëpp ñu def la ko ca jamono ja ngay ne opposition nga ànd ak muñ jiital yàlla ba yàlla jox la ndam jaare ko ci Sénégalais yi xanaa kay ku am xel tuuti nga ne nag léegi naa teggi sama tànk waaye dafa mel ni suñu gars yi jàpp nañ ni mën nañu continuer di xëy di saaga di sosal di wax lu bon ci nit ñi ba pare toog tranquillement seen kër ma bëgg a leeral sénégalais yi lenn ñun suñu responsabilité en tant que ñu yor nguur te président Bassirou Diomaye Faye jiitu ci mooy réew mi il faut ñu delloo ko fi mu ne woon réew mi xamuñu woon lii de bañante enante di wax lu bon ci nit suba ak ngoon parce que rek àndu leen ci politique yéen ñëpp dégg ngeen samay discours yàgg naa leen wax ni ku fiy wër di saaga bokkoo ci Pastef lu leer laa musa wax yàgg naa def samay vidéo naan leen bàyyi leen lii bàyyi leen lële Pastef yoon yónni nit ci saaga wala xaste wala tiiñal wala di sosal nit ñi ko doon def gis nañ leen parce que ba ñu jàppee ki koy def ñoom ñëpp génn nañ dem commissariat dañuy dem jàppale ko est-ce que jàpp nit bu ñu ne dafa bokk ci Pastef ci ay saaga Ousmane Sonko dem fa wala mu wax ci musula am kon may wax ñepp nak suñu responsabilité en tant que état moy réew mi ki mané moy suñu suñu kay ci wër wi ñu tollu wër wi ñu tollu muy wëru tabaski ci la def tagatom discours tagatom li gëna na fass ci discours bi sen sen alal sen deret ak sen orma aramna na seen ci wër wi la ko deretu nit réputation nit vie privée nit lolou lu aram la nagn ko sambalante kenn ku comme moroomam politique débat d'idées la contradiction d'idées la ku neex nga ne d'accord ci une politique d'accord ci sen politique cham gi d'accord ci li ngeen def ci ressources naturelles bi éducation bi ñu tok débat problème amu ci mais xey rek ubbi sa internet di saga nit loolu duñ ci am tolérance ak kenn a commencé par waa Pastef yéen ñi seen bopp duñ ci am tolérance ci kenn barki démb semaine passée ministre de la justice man la envoyé vidéo ne ma kii ci Pastef la bokk te mu ngay menacé magistrat yi dama ko monsieur le ministre defal sa liggéey ñun newuñu fi di xool kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax loolu lañ doon xeex démb duñ ñëw tey di ko dëggal kon fii ñu toll nii soxlawuñu saagakat soxlawuñu xulookat xam nga lu ñu soxla liggéeykat jublu ci liggéey bi rek te dinaa ci ñëw ci deuxième partie bi may wax noonu ñu ko bañee ci kenn kenn ku ne noonu lañ ko bañee ci kenn kuy wootewu moo xam da ngay bind moo xam da ngay yor kuy wooteew journaliste parce que impunité bi am fii nag dafa ëpp man journaliste laa rek liberté de la presse mun naa xëy bind lu ma neex ku ma neex ma bindal la loolu jeex na ci réew mi jeex na tàkk dem leen ngeen lire code de la presse article 13 xaw article 14 wax na lan la ñu tere journaliste xëy dem jël ay affaire bind nan dañu dakk général sangam Sonko ko dakk dafa don dafa don xex rebel yi motax ay waxu ñak fu la ñu ñu la fan nga jëlé sa preuve nga nan ben site internet bu nekk Delaware xawma fan. lolu jeex na ci réew mi su Sonko sàccee xaliss su Sonko reyee nit su Sonko defee naka sudul nonu journaliste bu ci am preuve nako bindu def ko une bu reuy lolu c'est son droit loolu moy liggéeyam waye toog rek ne Sonko neexuma wala jox nañ ma khalis wala Diomaye Samba wala Demba dina bind luma ma neex ci mom suñ ma wooyee ma liberté de la presse presse mënul am liberté bu kenen ci ñun amul président de la république sax amul liberté bobu président de la république mi ñu fal muy le premier des sénégalais amul liberté bobu au nom de quoi ab journaliste japp ni amna bobu droit du amna ñu nañu fit la bindoon nañ ko bindaat nañ ko bindaat frères et sœurs africaines, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs toujours à la solde de quelqu'un.